alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatixi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 di delsiwaat di sof li ma sosoon ak yow démb rekk ci waxtu wi ci israawu géek miraaj gi waxoon naa la ne ba muy dem buraaq la yéeg al buraaq nag mustaqun min al barqi di daxaba joo xam ne fasa ko ëpp waaye moom moo ëpp mbaam boroom xam-xam yi jëme ne waaw lan moo tax waruluñ ko fas lan moo tax warul mbaam ñu ne ñaari xikmatu moo tax waru ko bu waroon fas dañuy foone day xare ji ndax ñaareel fas xare la gën a baaxoo bu waroon mbaam mbaam dafa xeebu mooy li gën a xeebu ci juri kër yi ànd ak la mooy xeebu yépp nag ci juri kër gi la bokk moo tax nag moom mu mujj war bax la bax la boobu mu waxo mu waroon soo yoree caméra naa la ko fotool bokkut ak bax la yi nga xam bax la ba daal maanaam xar-xaramam ba di lex ya dafa niroog lexi nit boo gisee lexi nit rek gis nga lexi lexi bax la ba yonentu ba waroon tànkam ya dafa niroog tànki gëléem boo gisee tànki giléem rek gis nga tànki bax la bi yonent bi waroon séqam ma nag moom dafa niroog séqam fas mu nekk teg gañ ko tegaloon nag teg wurus wurus wurus la wu weex mu amoon ñaari ñaari tegeekaay mooy booy yéeg escalier boobu ngay teg ñaari teg ngay teg door a xegg ca kawam ñaari teg yooya nag yëpp ñu ngi ko liggéey ci wurusu zabarjat boo xam ne dafa axdar ah, boobu ci lañ ko liggéeyee daaba jooja laxabam nga yaqutul ahmar la ma ngay melxati di leer lii ma wax portele bi boo ci bëggee xam bu gën a feeñ man naa man dama laa porteleel daaba ji rek bopp ba ak tànk ya waaye wanu ma la gannaaw ga ak leen li ci aju demal ci téere bu ñu tuddee insaanul uyun dana la gën a porteleel daa jooju sayiduna muhammad waroon bi muy a ah, maanaam defi israawu léegi nag werante xam ndax yonantu bi moom ba mu yéegee ci daaba ji moog jibril ñoo ca supporté wante boroom xam-xam yi ñaari wax ñu ne ak ñoom ñaara ca warandoor ñu gën a bëri nag dañ ne jibril daar warut ca moom yonent bi moom kenn dong moo ca war moo tax mu ne ko wàccal ba mu ci bañ ba dara di sulul wàcc daf ne ko wàccal moo tax daal kon kenn mosu caa war lam yarkabil buraaqa ahadun qabluhu loolu la noowi yu gëm ba tey tamit ibnu dexyata loolu la gëm kenn xéegut ca kenn mosu caa xéeg tamit moom kenn dong moo ca mos a kon wax jooju mooy wax ji gën a wér boo demee ca mun muntaqaa loolu la gëm mu ne jibril xeegut ca woon ndax daxa ba dañ ko koo jagleel ngir ak tedd nga ak tukkee mbile mu yéeg ca waaye duxutoon lu luñ jagle leen keneen mu war caa yéeg su ko defee nag suuf suñu xegg rek yonent bi ne ko wàccal jibril ne ko kon wàccal ba mu àndeeg moom waxoon naa la romboon nañ yonentu yàlla Musaa muy julli foofu yonent bi wàcc na fa ba ñu yeggee Madiyana muy suuf soo xam ne suusu rafet la foofa wàcc na fa mu laa Jibril yonentu bi Jibril laaj ko ne ko ndax xam nga ay na Madiyan nu Muusa Muusa amoon doom ñu tuddee Madiyana mu ne ko ndax xam nga moom moomu fu mu nekk ak lan la mu ne ko déeréet ba wàccee mu ne ko fii la nekk fii mooy palaasam bi mu continué dem. fu mu wàcc nag ñaareel dana fa julli mu continuer passé na Madiyana googa passé na yonentu yàlla musa dem na ba ca yonentu yàlla Isa ca baytul laxmin ab dëkk la bu jàkkaarloog baytul muqaddas fa la yonentu yàlla Isa juddoo foofa tamit wàcc na fa julli fa mu gis fa sax kuyel jinne lu ponkal ma nga yére benn jumab safara saa yoo xamee na nii rek ah, jubóob safaraam booba ma ko yore ah, su jibril gestoo rek gis ko moom tamit bu gestoo rek gis ko jumu safaraam ya ci la ko jibril ne ko kaay ma jàngal ay baat yoo xam ne soo ko waxee danga nga mucc ci kuréel jinne léeg jumu safaraam bi mu yore di la jublu si mu ne ko baat ya yan la mu ne ko waxal ne audu bi wajhillahi alkarimi wa bi kalimatillahi tammati llaati laa yujaawisuhunna barrun wala fajirun min charri ma yansilu min asamaai wa min charri ma yaruju fiha wa min illa taariqan yatruqu bi xayrin ya rahmaanu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax lii ne maa ngi muslu ci jëmmi yàlla ju màgg ja di ko musloo ca baatam yu mat ya baatam yu mat yi nga xam ne nit mënta baax a baax ba jéggi ko nit mënta bon a ba jéggi ko muy di muslu nag ci wépp xay wuy baxee ko ci asamaan di wàcc wala wépp xay wuy baxee ko ci suuf di yéeg ci kaw ci xayu lépp loo xam ne nii yàlla bind na ko moo tax mu ne wa min sharri ma zaraa fil ardi wa min sharri ma yaxruju min fin wa min wa min fitani leyli wa min tawaariqi leyli wan nahaari illa taariqan yatruqu bi xayrin yaa rahmaanu lii daal la bi ñaan su ko defee rek waaja seytaane booba di ifrit ba jumab safara ba këpp ak moom fay su ko defee tamit kenn gisatut ko foofa continué na jibril euh, ba yàlla wan ko ñi jihaat ci yoonu yàlla bu keroog yowmal qiyaamee seen fay na muy don yàlla da ko wan daal ay gaa yoo xam ne dañoo xam ab tool moom daal bu ñu góobee léegi léegi mu sëqaat léegi léegi ñu góobaat léegi léegi mu sëqaat léegi léegi loolu li suñ baykat yi buñ ko xamoon duñ wax dara luñ bay rek lu ñu góob rek mu ñoraat ko ki saasa ca saasa mu laaj ko nag ne ko ñii ñan la mu ne ko mooy melow jihaadkat yi haulaai almujahiduna fi sabilillahi tuddaafu lahum alxasanatu bi sabi miati diafin wa ma anfaqu min xayrin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru mu jàng loola kon ñay jihaad ci yoonu yàlla ak ñay jihaad tamit di joxe seen alal loo joxe léegi léegi yàlla jo yàlla wutalaat na lu ko gën léegi ak lu ko xëpp léegi su ko defee kon nag moo tax yàlla yonentu baa ngi wax ne yàlla am na ñaari malaaka ah, yoo xam ne bët bu sedd nañu déggale doomu aadama yi ku ko dégg dégg na ko ku ko déggu déggoo ko kenn ka dara du woo xam ne yow yàlla képp kuy dundale yàlla nga ko wutalal yow yàlla ki nay loxoom ba dagg cal conc la du joxe. yàlla nga sànq te yàq li nga xam ne yore na ko su ko defee ñaari malaaka yii lu rek lañuy wax ba ngoon jot ñu continuer di ko wax su ko defee kon nag loolu lu jara am bàyyi xel la su ko allahuma aati munfiqan xalafan allahuma si mumsikan talafan lii mooy baat yoo xam ne ñoom saxoon nañ di ko wax heure bu nekk kon lii daal yàlla won na ko yonantu bi ñay jihaat ci seen bakkan ak ñay jihaat ci seen xalal bu yowmal xiyaamee nay yàlla di fule seen mbir ya ci fulawaay yu bari yooya ba tax jibril wax ko noona ci noonu mu continuer rek la ko am ku ko xool ci nday jooram ne ko hee yow yaa muhammad anzir asaluka yow yonantu bi xaar ma muñal ma ma laaj la yonantu bi tontu hut ko laaj jibril na ko ko ma doon xoo di ma laaj pour mu may laaj ma tontu ko mooy kan mu ne ko haada daai daai yahud kii muy kuy xoote jëmee ci yoonu yahud wallahi amma innaka law a ajabtahu la tawahadat ummatuka wallahi su fekkoon wuyu nga ko sa xeet wi yëpp dañ soppeeku ay yahud ñi si xeet wi la ci soppeeku ay siif ak nañ leen bëggee di leen roy te nañuy watee seen sikki yaag seen mustaasiya nañ leen royee ca nañuy soloo nañ leen royee ca nañuy waxee xam naa bu ko xuyu woon ba loola yokk xaw ma fu ñu jëm ci àdduna bi kon kooku tontu hut ko faale hut ko moo tax tamit loolu la ko wax su ko defee tamit li kon mu ne ko dañ nekk ñoom ñëpp di yahut jàpp fi tawreet bàyyi fi alquran waaye lim ci nam nag mooy li gën a bari ci sa xeet wi rek waaye na mu ci xeet wi yépp mu continuer dem am ku ko woo ci càmmooy wa daa munaadin an yasaarihi kazalika falam yujibhu xam ku ko woo ki càmmo yonent bi huyuhut ko mu jigéen nag mu laa jibril ne ko waaw kii di ma woo kan la mu ne ko kii mooy koy xoote jëmee ci nasaraan amma innaka law ajabtahu la tanassarat ummatuka la tamassakoo bil injili su ko defee mu ne ko ñoom ñëpp dañ jàpp injil bàyyi fi alquran li hëpp ci ñoom nekk ay nasaraan bàyyi fi alquran dem jopp linjil yàlla wan na wuññil na ko melow àdduna ci misaal mu gis jigéen goo xam ne gu huññi ay xasaboom ya dée nga de mu nekk koo xam ne am màgget la ku wàññeeku ci lépp la amul benn taar su ko defee nag yàlla bind ko muy mu maanaam amul wenn xeet an na nawaxal waaxida min a siinati wenn xeet asitaar la am rek woo xam ne ma ngi say not xoli góor ña te moom daal ku ñàkk solo la taxu rafetu dara dara dara ñaaw lool mu ngi mel daal màgget muy xeesal la ndax daal dañ ko wan màgget muy xeesal te nag yobbu yóbbu na xolu góor ñu bari ah ma ngay wax yonent bi ne ko xaar ma ma laaj la moom màgget ma yonent bi ko mu laa jibril mu ne ko tilka dunya ama innaka law a ajabtaha laxtaarat ummatuka dunya alal axirati wallaay li la doon xoo muy màgget moom di tabaronk bi du dara lu dul àdduna boo ko wuyu woon rek li ëpp sa xeet bi dañ topp àdduna te liy topp àdduna de xaw ma bu ko doolee ko atoon fu ñu jëm kon nag àdduna ngoog màgget mu xeesal mu ay gaaf la jigéen nag bu xeesalee rafet ay gaaf góor ñaay jeex rek waaye moom du lamb ku ko takk dee tamit dañuy wax ku ñëw day wax dañuy wax rek takk ko dee keneen ñëw ah dañuy wax rek takk ko dee kon àdduna ngoog màgget la mu xeesal di jaayab taar boole kooku xaay gaaf lool ku ko takk dee te bari ne faw ñu takk ko moom nag nangu na may gu njëkk waaye nanguwul may gu dëkk su ko defee nag moom tu xamul tur lam doon rek la tudd njéeme la tudd rek sant ba nan nga caa nekk jéem a jéem ba sonn ba ba ko fi faalewut kenn. su ko defee kon nag àdduna ngoog boo ko xuujee mu wan la gannaaw nga torox boo ko wanee gannaaw fase ko ne ko du la fay li moom mu daw topp la moo ko takki ndeer a xem noo ko gën a dàqee nag gën a torox su ko defee kon nag màgget moom mu wan ko mooy dem mooy màgget ga boo gisee mu wan ko mu ne ko la passé woon mooy li passé ci àdduna li des ki dund ak màgget mi mooy li mooy li des ci àdduna muy tekki ne li ñu dese moo gën a tuuti li passé kon yooyu yëpp romb na ko moom sallallahu alayhi wa sallama ba tey maanaam dana am beneen riwaaya buy wane na romb na ab jànq léeg-léeg mu tuddee ko ab jeeg te loolu lépp ma ngi cay namu àdduna rek dana tudd jànq tudd jeeg waaye lu ci mun di am daal jànq la boo xam ne dafa xabu taar ci xeesal sol maquillage wu bënn ki wàccee ay xefam pentiir kanamam gaag su emaay loxoom yaag baaraam ya fu dën ko fekk loolu lépp taar la bu newut ca moom boo ko ca sàkkoo rek nag nga mujj torox moo tax kon moom li ñu paase moo gën a bari liñ dese yonent bi daana wax ne yàlla ba mu bindee aadama booba àdduna màgget la ak nëtëxaayam nga ak waxambaaneem nga dem na kooku ma nga ca axbaar yi boo demee da ko ci fekk ci yu baree bari ci wax yi gaa yi boroom xam-xam yi boo demee ci xayaatul xayawaan da nga ko ca fekk su ko defee nag kon tamit àdduna ngoog ak li ci aju mu ne tamit yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallama foofu la rombee màgget ma ma la waxoon ci émission yële passé ma ngay dajale ay sayu mat rek di taxan mu ko yanu te ma ngay taxan di ca dolli mu laaj jibril mu ne ko mii ñooñ sa xeet yu nga xam ne dañoo nangoon a yanu responsabilité ci sa xeet wi di xenu ay ku ay ay kóllëre loo wax ñu ne mën nañ ko boo leen falee ñu ne ba nangam député lañ soxla maire lañ bëgg doon gouverneur lañ bëgg a doon dañoo bëgg doon maanaam président dañoo bëgg a nekk nangam ak nangam te la ñuy laaj la ci ëpp duñ ko taxawee moo tax yonent daan wax ne it ittaqul waawaat te loola junjoon naa la ko ci lu bëree bëree bëree bëree bëri loolu lépp gis na ko gis na ñoo xam ne tamit. moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wu ñil nañ ko melaw ñay bàyyi julli ca yowmal qiyaam nañ leen war a mbugalee ëllëg ña ngay riix seen bopp ya lañ cay riix te buñ ko ci riixee rek mu delloo si mu mu delloo si waat buñ ko riixee rek bopp ya daanuwaat del si waat mu mel ni godono bu ñu sotti ci seen kaw bopp ya tàngal ko ba mu tàng jir mu ñoree ko rek daal di ñëwaat del naa juluuduhum baddalnaahum juluudan gayrahaa su ko defee na mu laa jibril ne ko waaw ñii luy ñori seen yaram wi te di ko indihaat dara ci bopp yi la ko waral mu ne ko ñii mooy ñoo xam ne dañ daan sàggane julli juróom yi julli loo leen kenn mënu ko bu ëllëgee dañ leen di sotti luy ñori seen bopp yi ñii mujj di torox xuñul nañ ko bàyyi ña am asakata duñ ko génnee commerçant yi déglu leen ko ña ca caawa ga di mbokki pël yi déglu leen ko ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ay promoteur di jaay ay terrain déglu leen ko ñi nga xam ne tamit dañuy luye oto wala ñuy louer immeuble la cay ruusee ñu koy denc ba matin ba déwén déglu leen ko ñay boole nag louer ak jaay yaa ngay jaay yaa ngay luye su ko defee tamit déglu leen ko mu ne ñooña daal moom yonentu bi gis na leen su ko defee sallallahu alayhi wa Ah, moom ma ngi cay wax bañ leen xuññee seen mbir ñoom bàyyikati asaka yi ñu indil ko aw nit daal seen ak jàkkaarle dafay mel ni ay mbolde la li leen di dóor bu ñu wanee gannaaw ñu leen dóori mbolde ñiy daw am tamit ay gëléem ak ay gàtt yu leen di mbëkk suñ daanoo fële rek fañ daanoo ba neen mbëkk leen ñi ñëwaat fañ déparé woon ñooñu mbëkkaat leen ñiy lekk dariyax di euh, gàncax goo xam ne boo ko lekkee sa biir bi dafay ñoreeku nu ko defee tamit ñiy lekk ay dëkk sa xuum di garab googu nekk safara a ah, ba wax ko sajaratun taxruju fi aslil jahimi loola lépp nag yonentu bi laaj jibril ne ko waaw ñii seen melokaan métti na di ñan la mu ne ñii dee ci sa xeet lañ bokk ñooy ñi nga xam ne dañ daanuñ daanuñ génnee asaka moo tax tey tamit asaka dañ waroon a génnee mi ngi leen di génnee xar yi mi ngi leen di mbëkk nag yi ñu ngi leen di daan garab goo kii tamit ah, xaalis bañ amoon soppeeku nañ ko tàngal ko def ko ay mbolde di leen ciy dóor su ko defee kon nag nañu bàyyi xel ci asaka yi képp ku denc quatre-vingt-cinq grammes ren ba déwét su ko defee war nga caa génnee asaka soo ko jëlee da lay jox daanaka un million deux cent boo ko weccee ko yu manqué tuuti boo ko amee ren ba déwén war nga cee génnee asaka loolu mooy tolloog nisaab bi boo amee ay xar ak i béy mu man ñeent fukk génneel benn soo amee nag bu mat fanweer génneel benn soo amee gëléem muy juróom génneel gàtt nga am fukk nga génnee ñaari gàtt nga am fukk ak juróom ñetti gàtt ñaar fukk ñeenti gàtt ñaar fukk ak juróom nag demeet ga door di génnee gëléem gu ñu tuddee bintu baxaat su ko defee kon yu yëpp ñi bàyyi ci xel di ko taxawee waaye jël sa xalal ji di ko korkoral doo ca lekk doo ca lele ba dee ñu jël xalal gi di la ko lakkee nga dem safara dara jëru ko asaka du dafa niru luy wàññi xalal waaye da koy yokku riba dafa niru luy yokku xalal waaye fa koy wàññi kon loola lépp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te di ko toppatoo li ko mooy rek musiba am euh, ba mu ci bàyyeekoo tamit war nañ ko imaasu njaalokat yi nga xam ne dañuy njaaloo andil nañ ko aw nit mu mel ni dafa nekk seen kanam aw yàpp wu ñor mu nekk ci biir kaw diir gi yàpp woo xam ne dafa xaaraan di yàpp wu bon ñoom nag ñu commencé di lekk yàpp wu xaaraan wu bon woowa bàyyi fii yàpp wu ñor wi mu ne ko waaw ñu yàpp wi ñu lekk xasaw na di boole ko togguñu ko ñu koy lekk ni dara ji siit ci seen yaram ci seen gémmañ gi yàpp wu ñor waa ngi nii ñi bàyyi ko fi lu ko waral mu ne ko ñii sa xeet wi lañ bokkoon moo doon jigéen koo xamee ne nii sa soxna la nekk ku la lew nga bàyyi ko fii dem di njaaloog jabar joo jigéen koo xam ne lewut la yow jëkkër jaa ngi nii euh, tamit maanaam sa jëkkër lew na la nga bàyyi ko fi dem di seeti geneen góor yow jab jëkkër gi tamit sa jabar jaa ngi lew nga bàyyi ko fi dem di seeti jeneen jigéen te loola bari lool bàyyi fi seen jabar yi di njaaloo rek ba cëg ñenn ñi nekk ci hôtel yeeg auberge yi ñi nekk ci yeneen néeg yu kenn mënta xam appartement yeeg la ca xew jigéen goo xam ne ma nga defaru ba mel ndam war a mel jël appartement wu mille naan da koy fay xam nga ne góor ñamuy muy rek ñoo koy fay ñiy njaalo topp seen bakkandi yi boo lëggee yonantu bi nee na dafa mel dañ leen tegal yàpp woo xam ne wu xaaraan la ñu koy lekk mu deret jay sottee ko mu boole ko xasaw gata duñ ko mën a ñàkk lekk su ko defee bàyyi fi yàpp woo xam ne wu dagana dagan la te waxoon naa la démb mbugalam takk seen awra yeeg pax moomu ñu dugaloon leen mu xat a xat a ñu leen di mbugal di leen dóor ay mbolde ci seeni awra yi loolu lépp maanaam lu jara bàyyi xel la lépp yonantu bi sallallahu alayhi romb na ko ah, gannaaw loolu tamit sallallahu alayhi wa sallama won nañ ko imaasu ñi nga xam ne dañuy agressé di romb nit ñi ku leen romb ñu àddu la kalpe nga bañ ñi dal sa kaw dóor la loolu wan nañ ko ko mooy ñi nga xam ne dañuy dagg yoon di agressé dañ ko dañoo dikkal yonantu bi ci ab bant boo xam ne euh, lu fa romb rek yére bu fa romb rek euh, bant ba dagg la lu fa romb rek bant ba dagg la moom dal amul lu ko ma traversé te du la dagg bu euh, ne waaw bant bi moom ñaw na di lu fi romb lépp mi ngi koy dagg lu ko waral mu ne ko haza masalu aqwaamin min ummatika yaquduuna ala siraati aw ala tariqi fa yaqtauunahu wa tala wala taqudu bi kulli siraatin tuiduuna mu ne ko nag kon gis nga euh, ñiy agressé nit ñi di dox ba pañ gaa jàll boo rombee ñi jël jël li nga am boo rep boo riposté ñi faat sa bakkan bu yowmal xiyaamee benn bant lañ leen di wan moom la wan image ba bu ñëwee mu leen daggate rek nañ daan daggatee poosu nit ñi di ko daggatee xal li jàmbur yi di ko daggatee yoon yi ba nit ñi jàll boo léegi noonu la ñu daggatee seen jëmm ya rek daggate ka ay yel yaag bopp yaag tànk ya jal ko mu dekkiwaat léegi ñu daggate waat façon daggate googu lañ leen di mbugalee kuy daggate yoon yi bu yowmal xiyaamee ñu daggate la agressé nag nit yi yonentu yàlla luut yi ñoo ko fi njëkkee ñoo daan dem di dekk ci yoon yi di daggan di daggate nit ñi ku romb ñu agressé la comme niñ fi njëkkee woo góor jigéen ba alquran naan wala taqudu bi kulli siraatin na loolu ma ngi ca suratul araf ma ngi cay wane maanaam agressé gi ñu doon nit ñi di def yëf yu bon yooya te damay wax toujours ne ku agressé rek ñu agressé aat la ah yonentu yàlla Isa alayhi salaam benn waaju bon mos na koo agressé benn mburu waaye jiwut ko Isa dafa toog ba ci kanam xelam daj lekk mu jox waaji ay dinaar ne ko demal nga dem ci dëkk bi jënd ñetti mburu waa ji lekk benn bi denc ko lekk ko indi ñaar ya yonentu yàlla Isaa ne ko ana mburu ya mu ne ko ñaar rekk la mu ne ko tey ma wala biddiwu bëccëg ñi dem fekk dee ku dee Isaa dekkil ko foog ne waa ji dana wàcc dana jommi mu ne ko ana mburu ya mu ne ko ñaar rekk la ñu doxaar romb benn dex yonentu yàlla Isaa traversel ko ko te tooyu ñu defuñu dara bañ yegg ci tefes ga mu woon ko gannaaw fo ne dana wàcc ana mburu ya mu ne ko ñaar rekk la ci lañ mujj dem nag ba yegg ci benn place di seen ab dëkk yonentu yàlla Isaa def la mu def rek wurus wu bëri feeñ fa bu doon léegi nga ne 30 millions la bu yàlla Muusaa nag ne ko ana ana ana mburu ya mu ne ko ñaar rekk la mu ne ko kon nañ séddoo nañ ko def ñetti xaaj benn man benn yow benn ki kon mburu mi waaj a jooy ne ko man maa lekkoon mburu mi kon jox ma ñaari cër yi yonentu yàlla Isaa ne ko ku bon nga lu ma la wan ci wàllu yàlla taxul nga wàcce xaalis dong moo la mën a wàccee te loolu bëri ci jamono ji de bu xaalis taxawee nga njaay sa ngor bu xaalis taxawee nga fen bu xaalis taxawee nga xas ko xasuwut bu xaalis taxawee nga par parloo bu xaalis mbaa daraja mbaa ndomba tànk taxawee buñ la bawloo nga baw buñ la noppiloo nga noppi loolu lépp nit ku bon a koy def Isaa ne ko gedd naa la gedd naa sa xaalis bi jëlal lépp jox naa la ko Euh, maanaam kaañ waaye kaañ nga gaañ la koy jural fañ instant wan ko gannaaw tuuti rek ñetti agresseur fekk ko fa dóor ko ba mu dee jël 30 millions yi ñoom tamit ñu ne comme am nañ xaalis ñu fi nekk jënd ceeb wala ñuy jënd fondeeg lépp dañuy jënd yàpp yónni kenn ne ko demal nga jënd yàpp ca dëkk ba xaalis ak financé dal yàpp bu baax de waaja dem ba muy jënd xelam daj mu ne teema caa def poson waay ñoom ñi lekk ko dee mu mën a jël 30 millions yu man kenn ñoom tamit ñu ne waaw tee ñoom bu ñëwee ñi ray ko bokk ndax ñu mën a jël 30 millions yi def na ca poson indi na ko ba muy teg lekk ga rek gaaya dal ci kawam dóor ko ba mu dee ñoom tamit ñi lekk-lekk ga jàllal bi ku dee ca poson ba bàyyi fa 30 millions ya kon kuy agressé dañ la agressé waat boo guddee fan dañ la agressé nga dee dee gu ñaaw gu bon soo gàttee fan dañ la agressé ci ca biir bàmmeel malaaka yi ñoo la fay fekk agressé la bu yowmal xiyaamee tamit nga continuer ñu agressé la di daggate sa cër yi buñ ko dajalee ba daggate ko mu mel ne saam ñu dajaleewaat ko noonu ngay nekkee suma laa yamuutu fiihaa wala yaxyaa kon nag yëpp dafa jara daw bàyyi xel yëpp wan na la kon wan nañu imaasu njaalokat yi wan nañu imaasu agresseurs yi wan nañu imaasu ñi ñi bañ a julli wan nañu imaasu ñi bañ a joxe asaka wan nañu imaasu ñiy lekk ribaa ak ñiy lekk alal li jirim yi ak ñi xiir lool ci àdduna te xenu ay responsabilité yoo xam ne bàyyiwuñ xel ngir matal ca dara xanaa dinaa la wax nag imaasu jëwkat yi yonent bi romb na aw nit ñoo xam ne dañuy lekk yàpp su ko defee mu ne waaw ñii yàpp xaaraan wi ñuy lekk te mu nekk médd ñooy ñan jibril man haawulaay yaa jibril fa qaala haawulaay na yakuluuna luxuuma naasi wa yaquuna fi fi aradihim su ko defee mun a ñii ñoo ñi doon lekk alalu kii jëw nit ñi di leen xas bu ëllëgee dañ leen tegal yàpp xaaraan ñi di ko lekk te duñ ca man dara kon kuy jëw nit ñi yaa ngi lekk médd a yuxibu ahadukum an yakula laxma aqihi mayitan fa karihtumuhu kooku alquran wax na ko beneen bi ci tegu tamit ñi nga xam ne dañoo ñaaw làmmeñ te mu bari lool léegi kaste rek ak ak wax ju ñaaw fu mu gën a bone nga tibbee ko fa ñooñaa yonantu bi yàlla wan na ko ko ci image bi da ko wan daal ñu indil ko ñu indi ko ci aw doj du ko defee euh, yëkk wu rëy rëy mooy nag wu mag a mag di génn ca doj wa waaye li ko xéem bu ca génnee day bëgg a delluwaat te du ca mën a duggaat te fi la génnee porte bi mu génnee ci doj wi munu caa duggaat muy turu bi mu ne ko ñii ñooy ñan mu ne ko mooy ñoo xam ne dañuy wax wax ju hëpp ju rëy rëy ci doomu aadama wala ci réew mi bu ëllëgee ñi réccu lañ ko doon waxee wax gi duñ ko mën a delloo waxaat fa mu nekkoon ndax wax moom balu fetal la bu xasee génn rek jeex na mënatoo ko jëlati moo tax nit ki mën naa accidenté tànkam ba damm tabax ko wala ñu jàng ko mu doxaat noppam ba dagg ñi ñaw ko biram ba ñi xar ko ñaw ko otom bi accidenté pare-brise ba ñi ñi ñi ñi sensé ko naka nu kàpp bi lemu ñi toliyee ko ñu may wax nu toliyee yi xam nañ ca dara ko demee suufu pont ci ron Colobane fekk ñu xereñe ñu liggéey ca wàllu woowa loolu lépp gaa yi tëggal la ko ba mel na melaatoon ca el yaag kàppood yaag la ca aju waaye nag wax moom boo ci xasee accidenté mënatoo koo defarati noo gën a defaree mu gën a yàqu bala nga koo xam nga wax musiba nit ñu commencé dal ci sa kaw nga ne déedéet waxee huma ko ni nii laa ci jubloo noo gën a rafetalee rek mu gën a yàqu te nit ki wax mooy accident bi gën a bon man nga nekk ci àdduna yàlla jox la succès jox la nga am carrière bu baax ñeent fukki at di wax luy jariñ ni nga di ci jariñu sa benn seconde nga accidenté ci wax rek mu yàq sa ñeent fukki sa ñeent atu carrière yépp la nga waxoon nag la nga defoon kenn gisatu ko kon yàlla nañu yàlla musal ci accident wu làmmeñ yàlla nañu yàlla musal ci accident wu cet boole bàyyee ñu xel yi ñi bokk ci ñay wax luy jariñ te yàlla dëppale ñoo ñi koy jëfee dëppale ñu tamit ak ngërmandeem ak yërmandeem yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def moo tax kon kat waxkat yi bàyyi leen xel seen wax di wax wax ju rëy ci nit tegoo ko fenn sa bakkan rek tegoo ko fenn xalal rek tegoo ko fenn eh, maanaam ndomba tànk rek politiciens yi bàyyi leen ci xel utkatu ndomba yeeg utkatu daraja yi bàyyi leen ci xel ñay firanteeg ñay boddante bàyyi leen ci xel su ko defee boo ci bàyyi bàyyiwat xel ba dee tuub ko ñi fii mujj rek foofa ngay mujj su ko defee kon nag lii lépp ay image la yàlla wan na ko ko waaye wan na ko tamit image waxal jana moom daal dafa romb aw xuur woo xam ne xet ga dafa sedd lool ngelaw la cay upp dafa sedd xet ga neex lool ba raw misk mu dégg kàddu guy wax hee yow jibril hada sawtul jannati hee yow jibril hada sawtul lii mooy kàddu gu aljana de su ko defee nag mun a yow ya yow yàlla yàlla nga ma jox li nga xam ne dëxaloon nga ma ko won nañ ko ko kon aljana xuur la xeet ga ngelaw la neex na ki mooy climat ba xeet ga neex na ku ca dugg dootoo teqali ko teraanga waaye wan nañ ko tamit waa safara euh, wan nañ ko imaasu safara ya mu dégg kàddu gu naqari xeet gu bon gu xasaw mu ne ko eh, yow jibril hada sawtu jahannama lii mooy kàddu maanaam waa safara kàddu ga nag mooy yaa rabbi iti nii maa waata nii waay waay yow yàlla la ma dëxaloon jox ma ko xal jaana tamit kàddoom nga mooy yaa rabbi itini maa waata nii la nga ma dëxaloon jox ma ko mooy jox ma nit ñu baax ñi jullikat yi xoor kat yi joxe joxekat asaka yi ñu sàmm seen làmmeñ yi ñu wattu seen awra yi wattu seen biir yi jox ma leen man yàlla ma teral leen bañ fàtte ne mas nañoo jaar ca loola safara tamit ne yow yàlla yaa waxoon danaa fees de la am la ana jahannama mina jinnati wa naasi ajmain feesaguma ndil ma sama candidat yi gaaw ñu ñëw su ko defee kon nag yàlla buñ ca bokk loolu lépp jar naa daw jar naa bàyyi xel su ko defee kon nag lii de ma tuddal la euh, lenn la ci loo xam ne nii yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama romb na ko wax naa la ko ci yenn ci image yi su ko defee tamit nag nga mën cee déggee lu bëree bëree bari yow sa bopp mi déglu danga xam ban nga ci nga mën a waaj bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te xam ne àdduna amul solo boo ko toppee rek. mu trompé la boo ko toppee rek mu yàq la boo ko toppee tamit rek mu yàqal la yooyu yëpp nga jar jar naa daw jar naa moytu jar naa muslu lu ko mooy boo ci xasee surax da ngay mujj yàqule te yàlla nañ ci yàlla musal àdduna kër liggéey la àllaaxira kër fayeeku la fu ñu war a fayeekoo nag boo demee damay liggéey tamit du sotti du mën a sotti tamit kallaa innahaa kalimatun hiya qaa'iluhaa yàlla di wax wa qaa'iluhaa wa min kon nag loolu lépp day jar daw yàlla nañu yàlla dëppale ngërmandeem dëppale ñëw yërmandeem defal ñu tawfiix ak taysiir euh, su ko defee kon nag maa ngi leen tàggu fii xam naa su ma dellusiwaatee ci kartanal yàlla nag door a dugg yow nag mi'raaj bi euh, yonantu yam romb asamaan ya ak lu tax mu romb leen kenn ku ci nekk sa dund dafa am lu mu niroog bi moo tax yonantu bi romb la foofa loolu incha allah mooy nekk suñu waxtaan wi di ñëw boo ma toppee danaa la sofal li ma sos ak yow incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu